waa kay maa ngi tudd bashiru Ba ñu gën ma xam ci Tukulóoru Baay ma doon président Aar Sunu Moomeel en même temps doon président collectif Auchan Reste. tey jii ñuy màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen ñëw fi ci dëkk bu sell bi woon ngir joxe ay bernde askan wi lu waral fan la idée bi jóge waaw li ko waral mooy yàlla daf ñu bind ñu doon nit ñoo xam ne dañuy yëngu ci social. loolu sax mooy concept wu Auchan reste parce que dañ gis na Auchan bu fi nekkee njëriñu Sénégalais la donc kon ci social la ñuy dox te niñ ko defee fii noonu lañ ko defee woon Touba fu nit may waxe yow ñu ngi koy def Kaolack tamit tey ñun ñu ñëw représent nekkal fii nii ñëw fi pour Tiwaawoon juste pour joxe bernde parce que ñu jàpp ne guddig Mawlana ku fi ñëw ku ci nekk war nga sallallahu alayhi wa sallam gën gi mbindeef ku fi ñëw ku ci nekk boo amee dara rek boo ko defee foog naan doo ko mën a réccu comme nag yàlla may nañu ñu mën a ñëw pour barkeelu jox jaamu yàlla yi ñu xéewlu looloo taxoon ñu ñëw juste pour dimbale nit ñi comme ni ñu koy defee nag ci beneen façon tey dañ ko ñëw rek indi ko nit ñi jëfandiku ci lekk si parce que loolu mooy njëriñu aussi suñu concept ci niñ la ko waxee léegi buñ ne tey Auchan reste si ñu bëri yaakaar ne Auchan ngay jàppale en tant que tubaab fekk dama jàpp ne jàppale woo ab tubaab ñi ñuy jàppale mooy nit ñu ñun ñu fay liggéeyee wax naa la ko ak consommateur bi nga xam ne nii bu demee di jënd day jënd lu yomb par rapport ak suñu nit ñu ñun ñi nga xam ne ñu ngi jaay comme ñun tey bu fekkee ne am na ñeneen ñoo xam ne ñooy ay fournisseur ñi nga xam ne ay ndaw lañ ci réew mi ñu ne Auchan day jaay ay gerte rek lu nekk alors que ñoom jaayuñu ko parce que da ngay gis benn ndaw bu volontaire wu benn affaire ñoo jox Auchan mu koy jaayal moo xam caaf lay doon màdd lay doon géej lay doon lu mën a doon Sénégalais bi moo ko moom. su fekkee loolu am na tey ñu gis ay ñeneen ñoo xam ne dañuy profiter ne ne Auchan na fi jógee donc ñun looloo tax ñu volontaire wu ne Auchan na fi des donc nekkul image benn yoon tubaab mais foofu li ñu ci mën a wax rek mooy wax nit ñu ñun ñu gëm seen bopp te liggéey parce que fekkee Auchan daf nekk ñeenti at la fi nekk gum hmm? ah, bu fekkee Auchan daf fi nekk tey ñeente at la fi nekk commencé di déranger mu am fi vingt 27 magasin investir fi cinq milliards booba ak léegi di liggéeyloo junniy nit ak juróom benn téeméer di commencé déranger kon dama jàpp ne ñun Sénégalais yi war nañ xoolaat suñu bopp li koy waral nag mooy da ngay gis tey événement yu bari di xew férié wala tey dimanche la duma ma liggéeyi ku nekk ak la muy def alors que bu dee tubaab bi la moom Auchan dafa am lu mu fi teg lu normal nga xam ne chaque jour nit ñi dañuy liggéeyi ñaari bés rek la ñàkk la ñuy ñàkk liggéey mooy bésu tabaski ak premier mai may jàpp ne nag Sénégal yi bu fekkee gëm nañ seen bopp tey buñ defoon loolu tey Auchan du am espace bi mu fi am parce que li ñun la waroon ñun tant que en tant que sénégalais mais comme defuñu ko di nekk di nax nit ñi bu événement jotee comme ni nga ko xewalee parce que léegi may wax ak yow rek xam naa séeréer dañu ma reetaan mais kilo mburu maa ngi ko jëndee Tivaouane tey 200 francs ñeent fukki dërëm loo xam ne fa ne waroon a jar alors bu fekkee profité yooyu la ñuy def Auchan ñëw dindi loolu yëpp indil ñu prix yoo xam ne dafay du mos a yokku chaque jour na nag pour prix yi stable la waroon doon moom Auchan léegi na fi Auchan jógee jógee boo xam ne yow avant Auchan di fi nekk yaa ngi fi woon mais la fi nekkoon di rey nit ñi na fi jógee tegoo fi benn projet surtout mu dem pour nga reyaat nit ñi bëgg ci dugal ay politique ñëpp xam nañ ko jël ay nit ñoo xam ne kenn xamul ban culture lañ yor dégage du mot boo xam ne dafa respecté pour man kenn ko wax donc bu fekkee loolu mu ngi ay commerçant jël ko di ko wax ay sénégalais loolu du lu ñuy rafetlu moo tax Auchan di ñëw di concentrer di conscientiser nit ñi aussi wax leen importe Auchan mais daf ci bokk social parce que day dox ci social day dimbale ay handicap di tabax ay terrain basket di dimbale ñi nga xam ne ni amuñu yaay amuñu fu ñu nampé donc ñun tamit boo ñëwee doon branche boo xam ne social ngay dox dama jàpp ne foog nga jàppale Auchan donc loolu nag dañ jàpp ne képp koo xam ne rek da nga koy jéem a politiquer bu kenn fooyee réew mi parce que booy ñëw di woo ay nit ñi ci loo xam ne yow ci caaxaan nga ko te ci ay yokk ak ay caaxaan dama ay caaxaan la kon li am gëm sa bopp liggéey réew mi ñu bëgg a wax ne feeg ñetti weer wax nañ ko léegi tey ay élection am yàggatul fekkee loolu mu ngi war a am kenn kenn warul nekk di lëmbe réew mi donc nañ ko teg ci stable te xam ne am réew bu dalee bayeeri

ce que Fakhir. Ah. waaw gàddu doole ma doole ma doole ma. amiin. voilà